asalaamaaleykum waa Salam FM tey jii ñu ngi dalal sëñ Mbacke Sourang ci émission kii kan la moo war a waxtaanee jàmbaar wala mu waxtaan ci jàmbaar boog yooyu Cheikh Issa Diène ñu koy wax Serigne Naar Diène ibn Cheikh Mamadou Lamine Bara Diène sëñ bi bisimilah. auzu billaahi samiil aliim sheytaani rajiim bismillaahi wa kafaa wa salaamun alaa ibaadihi llaziina stafaa wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu waa Salamia TV ñëpp waaye nag di jiital si nuyu bi Serigne Cheikh Alim Dieng mi nga xam ne moom moo toog si njabootu Cheikh Issa di ko ñaanal baax borom bi tabaaraka wa taala dolli ko ak wér te itam yàggal ko si kanam mu njaboot ba li mu yéene lépp bi tabaaraka wa taala mottali ko di ñaanal itam Serigne Abdou mi fi wuutu suñu borom sotti si moom yërmande dëkkale ko ay waajuram yu tedd yi di siyaar njabootu Cheikh Issa Dienne waaye nag di siyaar siyaar itam njabootu jagle njabootu Serigne Naar Dienne nga xam ne jàmbaar yi islam la may wax ne ñaari foo ko tuddee foo ne doomi ngërëm rek ñëpp xam ne moom ngay wax waaye nag nu boobu bépp dañ koy jël di ko teg si ki xam ne moo toog ab toowaayam mooy si Sidi Naar Dienne di ko siyaar bu baax di ko ñaanal itam saxaw toogaay bi yàgg lool te ànd ak wér ak wér la fi mu yéene yóbbu liggéey bi lépp borom bi tabaaraka wa taala kàttan ko mu yóbbu ko ko ci lu kawe njort waaye tam ànd ko ak mbooleem euh, taalibe euh, jàmbaar ji ñuy euh, waxtaane nag xam naa ne ku naqaree waxtaane la ndax jëf ju rëy waaye tam ku yomba waxtaane la ndax jëfam dafa dafa fés waaye ci li ci dul yomb rek moom mooy tënk ko ci ay minutes boo xam da waxtaan daanaka vingt quatre heures ngir jëf jure yi foog foog foog si ay minutes dañ am lu ñu si wane rek ngir nit ñi euh, roy si moom euh, moom nag muy koo xam ne boo koy natt euh, benn bindikat waxoon rek di yéem ay nit ñoo xam dañuy taxawal diine si ñi te yëpp mooy taxawal diine tasaare xam-xam tasaare ay ngëneel fu jikko ju baax nekk ñu lamboo muy ab safaan ñu ñu sori jàpp ni waxtu nit ki di gën a tedd si ak dundam mooy wax bi mu am lu si neenal rek mu jural ko ak taxoon noom seen waxtu yëpp guddi ak bëccëg euh, ndigal rek lañ ci daal déglu amul benn seconde wala benn minute boo xam dañu ko bàyyi mu jàll ci ci ci ci ci ak leen ba diirub liñ fi nekk dam ñu jëf ñu jëfee noonu yàlla dogal seen liggéey mat ci saahir waaye nag ñu bàyyi fi njaboot goo xam ngi wéyal liggéey boobu nga xam ne du am fu muy yem mukk ci baaxu borom tabaaraka wa kon moom taxawaayam ci góor yàlla yi boo ci dee tànn li ma koy faral di wax euh, day toog toogaayam bu mat sëkk toogaay boo xam ne du may ma ma toog waaye du buuxante ndax foofu moom jëf moo la fa yóbbu te itam nag euh, jëf na may wax ne Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mu ngi dem ci géej gi wala mu fi daa def moom góor yàlla yi daa def woor junni joxe na sa def yëpp waaye ba mu ñëwee def yooyu ba def ko defee ko nu ko kenn defewul waaye xam na leneen lu ko dese woon nag loo xam ne moom ci xidma rek la ko mënoon a xam liggéey liggéey boobu nag képp koo gis mu mu cëru ak boo xam ne ku dañ xamal ne ci liggéey la ko jaarale ginnaaw xam ne def na mboolem ibaadaat yi loolu tax mu ne yàlla def na mu jiitu ci mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yoon bi sallallahu alayhi wasallam waaye dara muy gën a ci naar jenn nag moom boo koy misaal may wax ne nii rek la mën a mel kuy sa waajur nga ne sëriñ Mouhamadou Bara Diène kuy sa maam nga ne Cheikh Issa Diène kuy sa maam ci geneen wàll gi nga ne Cheikh Ibrahima Fall Mouridine kooku li ko wër lépp si li ñu tudd environnement ay borom ngërëm bu dee waajuram sëriñ Bara Diène boo xam ne sëriñ Tuubaa xamal ne yàlla gërëm na la sa gërëm na la na la man mii gërëm naa ba étage góor yàlla yu la bokk ñeenti ngërëm yu doo tàqali ko moom ëllëg ko gërëm mel na ni maa ko gërëm ko bàyyi ko ci moom cër gërëm loolu moom dafa doy sëkk ci ngërëm boo xoolee Cheikh Issa Dieng tam xasal mafaaxira Issa Dieng su këram faasa bil xurb ba ridwaani bil xidam kooku sam boolem luy am ndam ay ndam am na ko ci suuf amu ko ci suufaare xaritam da ko jigee war nang waaye nag xidma am daal kon kooku moom noonu lama mën a mel yàlla dogal nag bi xam ni ay waajuram ak maam mi tam fii lañ jaar am dañ am lool loowul loolu rek toog fa xam loolu ba noppi nag daal di nag takku nag naka sax bu dëgër moom tam fas yéene fàggu loo dañuy wax ne takrim kat taktasibul maali man talaba al ula sahara tarumul majida suma tanaamu leyla xat xat maata nafsaka bëgg lu baax te sonnoo loolu nax sa waaye ku bëgg am ku bëgg a dem fi nit ñi dem fopp rek di nga def coono fopp di nga def kër kër te coono boobu mu doon toggoo ak jëf nga war a am ay raaya nga ne la boo duggee ba ah, naam ay waajuram yu ko war yëpp fàggul nañ ko lu baax waaye nag pësteefam ak jëfam ak yéeneem sell nag moom nag yóbbu na ko koo xam ne fu kawe moom nag boo koy misaal ci wàllu juddu ndax damay wax ne Cheikh Issa moom xan yu na ni taar yi baara jenn ñu ñuy présenté Cheikh Issa jenn noonu waaye waajuru mu jigéen nga xam mooy soxna Mariama Fall xam nga ñëpp xam nañu muy doom am sëñ Mariama Fall nga xam ne moo ko meññ sabab gi loolu amee tam ndax mbir mu si nekk dafay am sabab ñi nga xamee ne sëñ Baara Jenn jóge na ci liggéey boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa digle woon nañu def mooy ñu yar moom la ñu war def lépp bu matee nga toll ci waa samp kër ah, nga Mariama Fall a jox nga a boo xam Sëriñ Tuubaa moo la seere murid saarix dafa ne xam ne dafa bokk sart sart murid saarix sala bul ixtiyaar am murid saa du tànn am moom day bàyyee boppam sëriñ waaye tey xam nga sëñ bi ko ñoom suñu borom toujours li ñuy wax sew dañ koy xoolaat suñu borom mën sax sikki sàkk waaye booba tam suñu baare ci taw murid saa gi nekk si moom mu ne ko man ko bëgg rek laa sëñ bëgg rek waaye mu tumal mooy mooy damay damay tànn naan mën baax daal di wéyee laata loolu def mooy li nga xam ne moom mooy wàllu sharia bi rek ndax amoon na sañ-sañu xëy-xëy ni ko jox naa la ko comme ñoom ci xaqiqa ak sharia la ñuy dox ngir lépp wane ay bind mënu mu daal ni kon baax dem ci maam Sëriñ Fall xam nga sa doom ji baax ji sa doom ji kat laa bëgg a jox itam mu daal si tontu tontu bu yéeme xam nga ne ba ma dalee wax ak léegi rek mosoo sama doom ji nga jox sama rak doomi rakk ju baax ji ñu sama wax daal di joxe moom tam kàddu mu daal di dem maamum Cheikh Issa itam wax ko lu mel noonu moom itam mu daal di tontu jëmmi lu mel noonu nee na sëñ xam ne léegi ñu ko seen ñëpp leer na mu ne kon xam ngaa toog diglu nee nañ toog na juróom-ñaari weer toog sotti ne kon foofu mu ne weer mu sotti ko loolu moom wallaahu waaye daal fi mu a jaar fépp jaar na ko Ah, noonu am demee noonu bi nga xamante si ni itam yàlla dogal na euh, ñu jox ko ko ci kàttanu borom bi tabaaraka taala nga xam léegi yëpp mat na wax na ne mi ngi gane àddina 1920 genn ñett ma jumul 1920 fi ñu wax daaru jenn neneen ah, dafa la gane àddina 1920 ginnaaw bi def na pax mu ñëw njenn la gan diggante boobu lépp mën ngaa jàpp ne bu ñuy natt si saa yi rek naan ak ndaw la mais gànna 1920 ba 1924 daanaka ñeent at la lay jox ci biir jënne googu nag fi la suñu borom tubaabu sax a dogalee Cheikh Issa wax wax sëriñ Mouhamadou Bara Diène si ndigal ni ko euh, sëñ naat mi njaboot bu Cheikh Mouhamadou Fat soxna am na soxna Fat Diène nag dafay taxaw taxawaayu nekk fa soxna liggéey di tarbiyaw sëriñ moom sëriñ naar jaan moom yóbbu ko fa muy doo nga ko Cheikh Mouhamadou Fadil mu war koo yar tarbiya ko def si moom dañ ci war a la ndigal la jógee nga jàpp ni kon moom ak demam ci Cheikh Mouhamadou Fadil ndigal la lu bàyyi Cheikh moom lépp ndigal waxee loolu mu dem ba ci ni mu ko nettalee moo ne duñ ko fay yóbbu tam tuuti la ndax wax na ne guddi gam fa njëkk a fanaan samul fa laa wax sama mooy waajur ne ko ma dem ba mii dégg ko tubal tere suba passé tout tànk bokk na tey ndax foofu dafay mat a taxaw mu nit la léegi ñu gis la rek ci ci ak mag barke bi ñëw lépp ñëw waaye duñ xam sabab ndax araab bi dañoo ne maarifatul asbaab muinatun ala taawil maanaam gis nga mbir mu ne boo xamee cause bi day tax nga mën a firi li ngay jàkkar nga xam ne moom du dara maanaam yàlla boo xasee sa liggéey si moom xas nga xas am ngërëm maanaam mënul tam maanaam kay sa dund lay wax naan fii la waaye say jafe-jafe dinaa maanaam da nga niñ koy misaal da ngaa connecté xam ne après loolu mooy mooy ngërëm bi mu defee loolu mu nekk fa ba matadal jàng nee na Cheikh Amadou Fadel moo ko si tudd si si muur ajara nee na si Cheikh mën na si gën a ay leeral suñ Cheikh ummi eh, jox leen suñ aafe suñ aafe nag suñ muur bu la leen jox xanaa moom suñ muur bu la leen moo doon moo doon mag si suñ imam xanaa moo leen doon jàngal alxuraan jàng nañ fa alxuraan diir bu yàgg danañ si amul faade jëlewaat leen fa jox leen ko ñu si Mor Sànqe Mor Sànqe ku xam Touba taarixu alxuraan ba léegi ay daaraam ak ay njabootam ngi liggéey si alxuraan liggéey bu bu fees mu nekkaat fa ci mottali alxuraanam ba alxuraan mat ni mate danañ sëriñ Fàllu jëlewaat ko si Moodu Ajara yóbbu leen Madina booba ñu def foofu ak tar xam foofu li fi déggee mooy am njàngam alxuraan ñu war a jaarale ndax suñu tubaab dañoo ne boo ko saa jox daan la fexeel ba man mën alxuraan ñu doog a si moom ci wàllu tarbiya ndax man ngi alxuraan day yombal liggéey bu itam boo ba da nga war a def lépp nga def ko sax bu mokkee fay lay xam bu mokkul itam man nga ëpp ay ngëneel sax ñu ko mokk ndax yéene nga ak jubluwaay ba dafay am ndax mbir mu moom am mbóot rek lay doon secret bu ñuy def le maam nekkul si mokkal daam benn mbokk ba mu daan ne ma mokkal alxuraan day wala wàcc alxuraan wàccoo ak alxuraan moo ko gën tey li ngay gis léegi nit mën naa tajwid ba ñëpp di jooy waaye bu jëfee nga dar sa gémmiñ kon dafa mel ne kon jikko wooki xëy na Aysa biñ ko laajee yoon tamit lan mooy jikkoom dañ ne kaan na kaana quraanan yabsa moo daa gis alquran mbuutum alquran moomu jaar na ko mu war a jaar des nag li xam mooy tar bi xam ne moom moo lay mooy dindi mboolem jikko yi nga xam ne waaye nag takkal la mboolem jikko xam ne lislaam mu def ko nag ci kippaaru sëriñ Mouhamadou Fall jamono yu xat nag ndax boobu dañoo xam ne Madina boobu melut ni mel ni tey ñu xam si daara rek boo xasee xam environnement daara ak ya sa aju daanaka la cafe mën nga ci tumuranke ci doon ak ndaw néew ay pexe jamono boobo nam tolloon jumtukaay dara amul doo gis téléphone amul télé boole ko wërbatiku ne war a liggéey jamono yu métti yooyu tey tam tar na daal boo xasee bañ tar na rek dañ xam lu sa xel dem wax na ne sax ci met na mbooba googu buñ Moussa Dirote moog si Moussa Diar ay siyaan lañ yoo xam ne dañ saa def seen sax fexe bu an bu leen wanee ginnaaw dara dafa ñëw def tax la rootiwaat demaat bu yàlla dogalee nag ñoo booba pël ca pël ah, fa ñuy dem dina ah, boobu bu ñu demee pël yi ñu lay ñu yor seeni nag fokk nga rootal leen fanweeri nag nag ñu doog ñu doog ko root loolu bu la waxee ne dund ko moom mi da xam ni kon ñu di ne benn fan dañ koy def miraaran root ak ay at sax nee na nag bu leen joxee ñu dem rootal nag moom la liggéey dam ñu defaat moom ñu ak yeneen yeneen waaye loolu mën ko see mën ko see jàpp ci biir liggéey boobu ci tarbiya gi ak la see si wàllu dem sa tool yaag diggante wala yaag yaag ba xel dem rek si daara def nañ ko wax nañ ne mag ñi tarbiya taxaan root bu ak yalwaan taxaan bu root yalwaan te loolu boo xoolee loo ci gis rek dafay am lu muy dindi dana dindi ak ak dana dindi gis sa bopp day mujj dem ba yow dana dindi sa ak taayel ba bu ñuy noppi si yow def sañ bi doonaan fépp lu dajee mun a am foo taxaw jàmm ngay wone loolu mooy waral fi mu ne fi ñu tolloon nit mun leen a wax baat waaye fekk na dañ leen a mel ni man loo ko wax da ngeen xaw mu formation boo gisee Moussa alayhi salaam lépp suñu borom dafa boole firaw des na mën ko yat ne ko yat essayé ko sànni ne ko yat ne formation formation yi nag ñaar boo ko defalee nit ki dafay nekk borom gëneel nag lépp dara du ko jafe daf lay yërëm ñaari léeg-léegi mën nga ko tooñ waaye moom fa xool da nga jàpp ne yow da dafa sori mais moom ma ngay xool moo tax benn bindkat di wax ne salil fadla ahlal fadli utman wala tasal gulaaman nachaa fi lfaqri suma tamuma walaw adraka dunia jamian bi asriha tuzakiruhu l ayam dañu wax ne booy laaj ngëneel da ngay seet ku am ngëneel kooku booy wut waaye nag booy wut ngëneel boo xam ne ngëneel nekk moom nit nga gis mu am cër yëpp waaye foo ko fekk day mel a àgg si nga lu baax la waaye loolu ki mu jomm wala ki mu gane si mooy waral ki nga xam boo ñëwoon gën a mën ko doog bu ne bu ne nga ko tijji doog a àgg ko demee nag loolu yàgg nee na si rek gis ni kon dëgg jàng naa alxuraan tarbiya nañ ginnaaw bi samal fadi si xikma bi ko yàlla mayoon ak nekk bi mu nekk borom xam-xam ak xam kim xam li war doomi sam léegi ci biir jàng xaw xam boobu nag dana ko yoon sëñ baaxir busa moom la sëñ baaxir nee na demee sëñ fa dana ko ah ma dem ba mii kat bul fàtte ne sëñ ngañ ngañ la tudd sëñ isaat sëñ baara jën xam waaye nee na sëñ Isaa moom sëñ ngañ rek la daaw ko defee nee na naaru yaa soode gi li ko waral la ñu xam bi mu jógee si daara ji bu mu saa di tukki donc yi ànd moom si ginnaaw ñooy ñooy jàng naan naaru yaay soode bu defee nee na sëñ fa naar ko defee itam waaye sëñ sëñ fàllu moom daanañu wax ne moom daana wax moom ngañ dem la daa wax ma waa diko ko toj moom sëñ Fallou ak mu des seeg ak ni mel waaye sëñ sëñ naar si boppam nag wax na ne moom turu biiram mu zaati moom nit ki day am turu waaye day am turu xam ne dafay combine combiné ak sa jëf moom bu ne la yaa ngi koy addiya ak yu mel noonu mu ne buñ sàggee daañu ko mën a gën waaye bi mu ko joxee ma dem ba mii sëñ naar mi kat dama amoon pas-pasu jàngal ko sama alxuraan xam-xam waaye ku ne xam na ni yitte ñi fi mu toll ak ak ak doxin wi ak moomatoo sa bopp war a lijjanti nit ñi ak soxle nit ñi dootoo am jot gi moo tax mu bëgg nga jàngalal ma ko xam-xam nee na nag maam sëñ naar nett la ne ni mu tàmbalee jàng si sëñ baaxir bu sey tam sëñ baaxir bu koo xam ni suñu borom defal at ak barke xam daanaka ne bindu bindu tayam bi mu jàng sax daanaka si lay jaaree xam bindu suba xam nga kon barkeel xam xam ni ma koy faral di wax xoolal bare kenn réer rajo yaa ngi ubbee whatsapp yaa ngi gàggante waaye daa mel ni tey nit ñi tey dañ gën a gën kon day mel mooy moo tax alamu ahlil ardi qaatiban waaye nag wan naasu tale anhu fil ëpp ñëpp xam-xam waaye mu ne bu dañuy laanutu la yàlla kon demeen xam-xam am na beneen mbir bu nekk si su ak njub nekkul demeen xam-xam amul waaw tarbiya gi waaw tarbiya moom mooy xam nga sëñ Tuubaa bu ñu mooy jafe-jafe maanaam xam-xam sëñ Saliou dafa wax ne jàngale xam-xam ni misaal mi mel nga nekk si kër gi naan na kër gi nii la mel ngeen bële la naan la fenêtre jëfee alxuraan mooy tarbiya na mooy nga nekk si biir nekk xam na nag léegi sama baa ngi nii man ñu nang bu ñaaw day wuute nekk ci biir la wax rek ni mel bu nekk bi da fekk par taw mi ngoog théorie pratique bi dafay wuute moo tax tarbiya ndax xam nga suñ tubaab boo xoolee Mbàkke Kajoor bi muy wax ne koo xam ne jàngale le andi woon tey bis ni ko tey na nga xam ne système bi dañuy wax système bi changé léegi xam na leneen lu fi nekk ngay jàng nag waaye nag dañuy dañuy sañ a soppandiku nag di la tarbiya di am fun lay am fun lay jaaral nga xam ne kon moom jàng na alquran tarbiya na jàng na xam te yaakaar naa yooyu mooy garaat yi ñuy nattal yi ñuy nit bi xam-xam bi demee itam ba mu yaatu ba yaatu ba a jël mu jël ko si amoon fa yemut waaye daf ko jëlaat indiwaat nee booba si Mbour Moustapha mi nga xam ne si Modou Bousso Dieng boobu mi ngi doon sëñ Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Khatim nee na mu jëli sëñ naar indiwaat Madina indi sëñ Modou Bousso Dieng moom itam Madina boobu mu daal di wéyelaat tërbi ko nga xam ne kon biir sàkku xam-xam moom ko tey ci biir ndigalul tërbi la ko doon defee wax na ne foofu tam bi ñëwee dañoo wéyelaat tërbi gi nee na moog sëñ Modou daanañ bokk benn lal bu ñuy fanaan bokk jumtukaay amul nee na sëñ Modou Faye daan bu jàpp jàppul farataam bu noppee séddalee ndox mi ñoom moo tax si mur daanaka wax ne jaag tooñ ne ko sàllaw da nga oyof rek waaye loo man rek man man ñoo ko man kon ko loolu lépp nag day isaara rek lay wan la moom jaar na fi nit ñi war a jar fépp daan wax ne foofu sax àggoon nañ si léeg-léegi eh, sëñ Fallou daan na leen yónni jamono day tàng lool bàgg si tàng xam ne ay dàll yu ñu war a sol boobu wóor na ma waaye ci biir mottali liggéey googu ak ak ak dindi lépp loo xam dafa noonu la leen di bàyyi xam nga Sëñ Fall daan wax ne su ma su ma neexoon daara yi dañ yàlla yi mel ni ndar waaye nag dama bëgg ba léegi bu ngeen ubbee seen gaal yi su ko neexoon daara yi neex mel ndar a waaye nag day am yoo xam ne dafa am ñaar yoo xam ne muy noos a ak ak kawe fokk rek di nga def nii. a ak it bi xaar nit ki nga xam ne ëllëg li li sëñ Issa yanu woon sëñ Baara yanu ko dana ko yanu ji kon wares na ko mën a waajal balaa àgg ci boobu. waaw waaw noonu nag boo ko waajalul loolu dafay loolu loolu loolu moo tax mu ne bu Moussa tàng mu ñu yónni leen te mu ñu daal amoon nañ ay pexe moo ak ak ndongo tam

nga lépp am na ko yooyu dafay baax di ko wax ñooñ jàmm nga xam ne ñi comme niñ ko waxee woon liggéey rek am lu mu bëgg a wane si ñoom rek yooyu yëpp ay isaara ndax boo jëlee benn boobu rek daf lay may nga mën see bootalaat yeneen yu baree bare waaye ngir njëkkante temps bi rek nga xam ne loolu base la euh, jaar wax na it ni diirub li muy nekk foofu Cheikh Mouhamadou Fadil am na nee na am na tukki boo xam ne bi mu koy def addina boobu la jógee dañ fi di wax ndog Tuuba Dindi Ngaabu Bat Mbow nee na fu fi fu fi nekk booba jumtukaay yi tukki sax bal motos lay wax waaye nee na barab yooyu ma la yëpp nee na yàlla tam ci ak xereñam yàlla dogal na barab bu suñ fàllu war a suturlu si guddi gi war faa ay jaamu yàlla am nee na buñ accee suñ fàllu mën dem nee na bu ñu toogee moom yàgg mu daal di ni ko ma dem ba jógal waaye xam daanaka nee nañ te bi ñuy tëdd rek ni jógee da nga yàgg ne dana ma trente minutes wala pour nga xam ne ñoom tashful madaji mi lay dañ junubuhum naa sina salma walay la fi yëpp moom noonu lañuy noonu noonu la ñuy fonctionner su ko ma dem ba jógal waaye mu jóg ñu bokk defandoo yi nii def nag noonu la nekkee ak moom nekkee ak moom ba tam jàppal ne ay ay ay ay yoon yoon la kon ci biir njàngum alxuraan moom ci biir njàngum xam-xam ci njàngum ci liggéeyu tarbiya bi ci yooyu la nekk diirub nag bi nga xam ne xàmmee ba ni muy tàmmulee di xam jàng fi alxuraan ba jàng xam-xam yooyu di dem ak dem di dem nag ba xam nag liggéey bu ne nag day mat yaa xameen mat nag Euh, si la Cheikh Modou Fadil woo Serigne Mawlin Bara Dieng ma dem mi da yaa ma ko defal mun ko am mun ko li ma doon def si moom lépp def def si moom lépp def na nee daal di yëkkati jël loxoom dugal si jibaam génne addiya ni ko siyaareel si waaju daan ko bis ni ko tey moom mooy sab sëriñ loo xam wax ko loo am jox da nga yem kon loolu fii jaar moom liggéey nañ lépp nag ci teewaayu ak ak waajuram ak maamam ak maamam ñett yëpp da koo teewee. nga xam ne kon moom sëñ fallu moo ko jébbal baar Baara. waaw ah, sëñ Issa moo joxe mu dem. mu dem sëñ Ba sëñ mhm, mhm. xam ne kon sëñ Fallou moo moo moo ko dig digal mu jébbalu ci baayam. Ah, na ko na ko ci moom. kon nga li ngay déggee foofu mooy. Eh, sëñ Issa sëñ Tuubaa ko yar eh, sëñ Baara sëñ sëñ Tuubaa ko yar ñoom ñëpp sëñ Tuubaa def lañ soxla ci ñoom kenn ku nekk sëñ Tuubaa nga tërbiyewu ba am ci ngërëmul yàlla sëñ Baara it sëñ Falloo ko tërbiye eh, sëñ sëñ sëñ Naar sëñ Falloo ko tërbiye li may ñëwee foofu mooy diggante sëñ Baara sëñ Issa sëñ sëñ sëñ sëñ Naar ni ngay ñàkk a yar bi day mel ne benn yar waaw day mel ni mi ngi daa ndox si robinet bi dem si ban dal nga si ban bi ba ñoo gis maanaam ko dem ndox nga fay eh, euh, euh, jërëjëf itam sëñ Moustapha Mbaye jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ci seen télévision bi di Assalaamy TV waaye di ñu déglu ci seen rajo Assalaamy FM Eh, seen émission kii kan la tey jii sëñ Mor Soro sëñ Mbacke Sorong lañ ci dalal fii ci kër Serigne Sidi moom Serigne Naar ñuy waxtaanee rek ngir nit ñi gën a fàttaliku wala gën a xam gone yi soo ko déglu it mën a xam kan mooy sëñ Naar Jenn ndax it sëñ Bay Jaxate dafa ne eh, sañ-sañ balaa am sànja am ak nattu ak tumuranke atte it ba fattu yëf yi xëyut neex eh, bala na nux nux na war war kon dañuy gis ne kon sëñ Ngañ jaar na fo mi téeméti mooy ci ndigal la gane àdduna ci moom mooy mooy jëmmi bu ñuy wax sëñ na sëñ kan mooy ndigal mooy sëñ naar koo xamante ne bii seyaari maam yëpp a làq ngërëmul sëñ Tuubaa beneen bi ci topp ci ndigalul yàlla la sëñ Tuubaa taxawale diggante sëñ sëñ Baara ak soxna Mariama Fall beneen bi ci topp yow sa bi nga juddoo ba nga xam ne xàmmeegoo dara war a mat a dal ndigal la yóbbu kër sëñ Fallu bi nga tër bi yow ba àggal itam ndigal moo la joxaat sa baay moom wàcc gudd ndigal benn yoon day mel ne léppam ci ndigal mu mel ne nag kon mu des mooy mat naa leen ko doon wax taxawaayam ci digganteem ak kër kër sëñ Issa taxawaayam ci digganteem ak kër sëñ ko ak it loolu nga wax ne sama turu biir na Ousmane la te koo xam Ousmane a xam ne sax nee na alfan wa kullun aq wa naaru joxe addiya moo ko ma diggante boobu nañ ko ah macha allah bu ko defee loolu mooy comme moom def na lépp te it xam nga suñu Touba mooy laa tafaalu shay'an bi ghayri izni fa iznu shartun qabuli sani bu leen def dara si lu dul ndigal parce que ndigal moom dañuy ëppee du ubbi waaye bu yéesee itam du ubbi kon lépp ci ndigal la ko jaar ba làq ko bi ma ànd ak waajuram itam mooy sama baara jenn àndut rek moom rek si ni moom mooy sama waaj waaye dafa ñëw comme ni sëñ Fallou jaay woon ak njureelam jënd ak tàll lépp la bàyyi ñëw laxasaayu topp sëriñ muy jëwrinam mu di ko diglu ci lépp heure bu xëyee balaa doxe benn amuloon soxla sax man nga maanaam balaa moo doxe daal dana ñëw diglu ko ba sëriñ ba Cheikh Mouhamed jox ko ndigal mu dem wéeru ko boo joxul ndigal mu dem toog waaye amul lu muy taxawal lu muy samp wala lu muy lu muy lu muy lu muy sempi yaakaar naa si biir sax xam nga nit ki léeg-léeg nga am taalube wala sax nit ki waajuram xaw a mel ni ku xaw a am complexe si liggéeyaloo doomam wala taalube ndax comportement bi mu koy wan nga bu ko ko wane bu ko liggéeyaloo mën naa xaw a si moom te suñu saw daan wax na si li wane nit ki amoon na ngërëm ba mu say waajur ragal la soo seen ba ñëw ko heure bu ko waajuram ragal xam tax moom dara dara wala charte yi mu daa wax la wala nga jóge si daara am ngërëm ba noppi fa nga demaat jigéen ñi yàpp maanaam di la yónnee ngay sol tol koo xam mun la solo la mu la suñu bari yaa moo tax moom bi mu ñëwee si kanam suñu la wax ne sax daa wul yor pour sax si day fa day julli di woor waaye toujours rek bu toogee si kanamam da koy wan ko daal man pare na ñu daal sa ndigg rek lay dara loo xam ne dana ko yànq loo xam danaan xaaral ba nga nag noonu la nekkee ak moom tàyyiwul nag benn benn yoon dafay si ay di si gont ba fi mu wuutoo ci ak tënk rek ba fi mu wuutoo sëriñ Baara Jeen doon xalifaam ci biir ndigal dañoo xam ne si Abdou moo toog ba mu mu wóolu ne ko booy ñëw na nga ànd ak ab sol sol la si ñun eh, nee na biñ ñëwee mu xamal ko ne ko almeeru njëkk yi kat àgg na ci foo xam ne dégg naa ñu ngi segale néew yi ndax xataayu ba jëru ndax Tuubaa suuf si yaatu suuf si benn la am na barab bu ñu waajaloon ba plan bi génn damaa xalaatoon sax seetlu ko sëñ Baara Jenn juróomi seex moom ak yeneen juróomi seex ndax gis bu ma gis ni liggéey bi yaatu waaye boobu yàgg sax ma gis ni loolu du ko jaral waaw sëñ Bara Dieng borom pëstéef la te kàttu tam moom fu muy yem may naa ko ndigal man mu daal ñoo jox ko ndigal li sëñ Bara tàmbali liggéey wax na ni huit heures la fa daa xëy suñ sëñ Bara Dieng moom ndigal li sëñ Abdoulaye sëñ la woo mu ñëw jot li Bara xam doomi sëñ Tuubaa ñoom ñaar lu ñuy def rek ndigal lañ koy def ndax boobu mënoon naa jóg jotal ko waaye gis nga mu ko jaar nekk loola am am na lu muy junjee nee biñ ko tàmbalee ci ñeenti weer ak fukki fan juróom ci biir liggéey bi nee na nañ ko ba tàmbalee ak bunt bi nee ci xuuba bi xam daanaka mooy yemukaay bi nee na fa la sëñ Baara wàcceem xam ko xam ko ba ci jumaa ba ci jàkka jooju nee na bi ñu àggee ci di ko def xuuba bi nag nee na si Baara wàcc ab liggéey bi ñu defee waajtaay yëpp nag nga xam ne sëñ naari jënn ndigal li ci moom la tàmbale woon waaye si baaxu suñu borom itam ci moom la mootali an léegi moo àggalee jàkke ji ñu rax ko jébbale caabi ji euh, si ñëpp laat fekk na boobu suñu baat seen waajuram wàcc na buñ leen ko jébalee itam mën nga ne kon ab liggéeyam foofu la tàmbale liggéey bi dangay daal di foofu nga a duggee ni ab liggéeyam si kër sëñ tàmbalee na foofu dam na ne sëñ sëñ ñëpp laat sant na ko fa sant ko wér nee na waxuma la yéen fi doon xëy waaye ñi fi jaar rek dugal ci seenu ñàkk rek am nañ defaru bi mu wéyal di comme leen di comme leen di sant ak kàddu yoo xam sax ëpp na ëpp na lool waaye ngir jëkkante ak waxtu bi léegi moom moo wuutu Sëriñ Bara Diène toogaayam ndigal nag di ko ci wàll yëpp doon dikkale sëñ sëñ wax na ne ba ci diggam ak sëñ Abdou Lahad xam ne ñu ngi eh, defar jumaa yi jumaa yi njaareem ji yokk bi xam foofu dañuy wax ne suñu ablaat ba suñ naar jan fekk na ko belal ci addiyee si jooju jamono ngir fukki million ak juróom def jamono jooju jamono jooju ku ko xamoon boo déggee boo déggee cent mille franc rek bu xaalis waaye si yooyu jamono tey ñoom li si yéem mooy ñoom seen jëf ñu ko gis ñoom buñ ko defee rek fàtt ne ñoom liñ gëm mooy dañoo war a liggéey moom suñu tubaab daa wax ne waqte xawaay jëla wo maa ishta bil basli wala xidma mastata boo amee sab sëriñ moom dara faj aajo di ko jox sàll waaye di ko liggéeyal di feeg yaa na bay wut yàlla foo àgg rek fàtt ndax boo ko gisee rek xamal na yaa ngi yaa ngi fàtt nee na foofu suñu blaat sant na ko sant boo xam ne lu si bari si Moodu Maamun Ñaŋ la ko jot waaye sa waxal boppam ne ko li murid wax le naan suñ Tuubaa àggoon na foo xam lu mu laal mu naan bul fàtte sa ak waa këram mun ko loolu lu wér waaye na xam ne yow mi nag ci sëñ Tuubaa ñoom liñ gëm ñun liñ gëm te fas ko mooy bu see waxe ban ndax moom dara lu ndax nga xam ne kon loolu mën nga ko jàpp si benn ak ci ñëpp la boo jàllee diggam ak Sëñ Abdou Khadr loolu ngay gis wax na ni moom la yàlla defal tawfiq moom Sëñ Abdou Khadr fukki weer ak benn la waaye moom la fi yàlla defal tawfiq mu jot ndigal si biir xilaaf ak Sëñ waaw loolu moom dégg naa ko suñu Bassirou Khadim mu nekk ñeneen du dul moom tey nee may loolu day mel ne xam nga suñu borom bu la bëggee taaral rek moo di liggéey boobu si lu dul ñu si xam dara guddeeg bëccëg la doon waaye nee na guddeeg bëccëg la doon xam nga loolu day mel ni yàlla fàggul yàlla bëgg a fàggul ndam yàlla dogal ñu si biir. fukki weer yooyu ak na ñu luyee ko mu set ñu ci loog sëñ Abdou joxe mbaar man rek am si këram gi joowaan ñu taw jox na ko ceeb lekk rek ataaya ji dem du naan rek waaye nag defaru biir si da ko xam si ñëpp waaw mi ko kule waaw noonu la ko topp wéyal ba ci nga xam daanaka foo ko tuddee moom da ngay jàpp ni sax ci saa yi léeg-léeg mooy naan da naan moom da ngay toog rek kii sëñ Saliou ñëwee ci sëñ Saliou li li mu daat yi boobu muy wax muy turu biir moom dafa mel dëkk dëkk moom dañ ko feeñ parce que la si gën a rek daanaka na ko mën a lépp lu ma loolu moom daanaka mu jeex am yéene naa la na sëñ Sidi mi dégg ko ma dégg ko mu ne ma waay jox bañ ma jox ko si daye sëñ Baara Jeen mi waajur mi noonu la meloon sëñ Baara Jeen aajo jox ko xam ne jàpp naa ne bakkan man na saaroti bu la digiree la ngay def boo ko ko joxee da koy yokk bu dee mu dolli sa bu na ne mbir mi lay tax mu jëm kanam boo si gisee sa bopp rek mu daal di commencé nekk ay loolu loolu moom ñoom Hakaza da'buhum loolu mooy seen mooy seen baax daal fi mu doon ñoom tey bu leen bëggoon def loolu leneen lu dul loolu mooy indi leen parce ñoom si loolu lañ leen yar seen lañ tàggat maanaam bu ñu def sax maanaam ñoom seen bopp ñooy dem wala sax tubaab du leen jub tey duñ ko gis am na lu ñaare ki muy mooy ki nga xam ne da ko da ko da koy jéem mooy ki koy jéem ah yooyu moom dañuy wax ni xaj na njuumte la day benn zahira la xaj na day mel benn phénomène la boo xam ne dafa benn phénomène la boo xam dafa rot si waaye nag wuute na ak ak ak ak ak ak ni mag ñu doon bu mat a xel ndax yooyu yi nga si daj pour am ko am na xam boo fa jaaroon di nga ko am ko doon daj waaye boo xoolee nit ñi léegi li ñuy daj si matériel li nga xam ne matériel la dañ ciy daj am du nopp lu guddi duñ nopp lu bëccëg ngir bëgg ñaar yooyu ma luñ sol ak lu ñu dawal maam Thierno Ibrahima Fall daan wax ne ni nga ragale ñàkk ba nga ko ragale woon yàlla ñàkk ragale barke borom Tuubaa maanaam li ngay def si àddina genn wàll gi boo ko defoon ci sa mbir. macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke xam naa day mel ne temps baa ngi ñuy jot. léegi nag damay ñëw ci nitu yàlla kuy liggéeyal yàlla ba toll ci wàllu tàggatoo. sëñ naar bëgg na maa xam ak mujj ndax waajaloon na ko wala mel na ko ci xamoon dara wala mujj naar waaw tax it yàlla moom loolu lay jëriñ maam liggéeyal yàlla su fekkee bu nit ki defee yaa ngi ñëpp a yem mm-hmm. kon day mel ne si waat bu ko jar liggéeyal yàlla moom la muy jar mooy da ngay mujj dem ba da ngay def ak ak suñu borom lu si nekk suñu ndax yàlla moom bu ne sama xëy bu du ma ko xamal lu dul ku ma gërëm la nu nga gis ne bu yàlla gërëm fokk rek mën na laa xamal ay secret te it loolu ilaa may talaa min rasul moom rasul moom moom suñu borom mu ne rasul bi seen koo xam ne ni muy waxee ñaar day tënk baat mu ne rasul rek du nakira nakira nag ñaare bu bu ñëwee ci arab mooy yàqu moo tax kon yooyu bu ko suñu borom bu liggéeyee lu mel noonu foog suñu borom mën naa mën naa dana koy day ay mbir waaye nag mu fàggu woon ko jël itam xam nga ci liggéey bi ni bind naa bataaxal jox ko sëñ waaw fekk boobu sëñ Sam mi ngi dund bu ñuy wax bàyyi bay yàlla gërëm ku baax koo xam dara def bi si naar jóge si daar ji suba teel dafay jaar ndékki ak moom gis nag mu ñëw si naar bind ab bataaxal ko joxal ma ko sama maam sëñ Sam fekk bataaxal ba suñ saw bi réservé ko mu bind sa ne maam dama bëgg nga ñaanal ma naa fi gën le naa fi le dana ànd ak ko xamoo loolu xamoo ko mën a misaale ku amul am xel du ko ñaan naar yaa bind waaw mun ko ànd si ma ànd si gën loxo teg si ñaan ñaan ñaan ba kenn ko baax xam nga seen a da xam ne ñooñu moom luñ ñaan yàlla def tey di yëpp mu ko ñaan itam teg nañ ku dund juróom-ñeent fukki at yu manqué benn moom gudd nga fan cër yi nag bu la neexee lu la si neex rek eh, mën nga ko yenn yi sëñ Isa sëñ sëñ Isa lu nga xam ne moo fi nekk sëñ Tuubaa na ko ndax koo xam ne ñëw fekk sëñ Isa lu mel ni fa fi ñëwee sëñ bi wax ko suñ sa suñ sëñ naar ni ko jublu na la bàyyi waaye mu ne ko yow loo ñaan yàlla def ñaan yow loo loo loo waxta doogu si suñu boroom def waaw ndax moom doomi suñ tuwaa neen neen daf ko wax ba am tuwaat ko am na lu muy tegtal ci ab waaye yëmu sa tam wax nañ ne toog na fukki fan juróom yoo xam ne addi ak ñi andi ay daayira sax mënuñu àgg nee na bi sëñ Sidi mii ba mu ñu yëglu ko wax ko loolu dana ko nu ñuy def mu ne xaar dem yëglu la wax waaye si ak gàtt rek nee na ba mu demee bàgg seen saw dañ leen loolu moom su ma koy wax seen naat ak ku jógee ak kër si naat bokk si dégg naa ci waxtaan si Mbacke wax ne mu yore loon ngor boo gisee seen naat dugg wala seen ñam am na ku leen ñetteel seen Basiru Saar nee na sa xel mën naa dal ndax kon ñooñu kon seeral nañ leen ay nee na na fa andi at itam jël ak fidèle rek si nekk bu la neexee kon ñoom dañuy xam ne ñoom ay maanaam fàkku nañ jëf nañ loolu nag ko ko defal nitu yàlla sa mbir di yam ak ñëpp moo ko wax benn waaye boo xam ne dana ma yàlla dafa def choc dafa ñëw ramassé ko ñëpp defe ne faatu nañ ñu ñëw fekk mu ne cocc fekk muy xam fu ne jaar faatu comme kon kon booba liggéeyal yàlla day yem ak lépp maanaam toccu la def donte sax feebar na waaye wér na waaye ku ñëw ni la kii lii moo daloon si kawam wér na danga naan lool kon kon tarbiya googu feeñ na si loolu moo tax bi ab liggéeyam ab liggéeyam matee nga xam ne àgg na ci mat itam def na ay junju muy wane ne mi ngi tam waaye yooyu yëpp itam ñaari nit ñi ngir ñu xam fokk rek yaakaar naa ki fi mujj si waa sax yi danañ ci waxtaan moo koy wax na ne at mi si naar bàyyi ko wéy wéy moom bi naar jox te at ma daara weer woon mu yóbbul na ko at moom daa boole lépp jox ko mel na ne te ci at mi fi jógee itam koo gis danga gis ni si la yaatalam yooyu yëpp lu mel ni vidéo ba nga xam ko gis ñaari mu di ko ànd image bu solo ci kori ko suñu Abdou Salaam mi am suñu waajur la si biir koor boobu ñëw na ci ñun ay fan lañu xëy a ñu woo ko néew ba ci Cheikh Mouhamadou sëñ sëñ Moustapha bu yàgg fi loolu te wax na ne suñ naar si ak mujjam euh, dem na seeti waaye bind na waaye comme ci ak tàggu soo la mu bind fa am bind bàyyi ko moom fa bàyyi bàyyi ko fa bàyyi ko fa naañ fukki fan lañ ci teg sëñ naar wàcc si Moussa Sall ci biir siyaar si boobu mu wëlëre la dañ leen a boole woon ñu jàppante lool bi mu koy siyaar si nag si la gis mbind moom fes daane kon ndekete moom man daf ma doon tàpp te te te xuma si man daal xaw mbind ma loolu waxi Seydina Aliyu la waaye boo ko déggee da xam ne dafay wax ci ay maraaxil ay monde yu bokk ndax danañ gis mi maa yi maanaam yaram yu day mi ngi nii xayra anna ruuxa gi moom nekk fa waaw maanaam ñoom xam nga ci Isaa fi mu ko marché bi mu fi bàyyi ko waaw waaye nii tey buñ la waxul yooyu dañuy defee nii leen dégg ñu wax baaye doo leen dégg ñu wax tudd hadis waaye buñ jëfee rek nga xam ne ñii moom toq nañ xam nga loolu jismi maayi xayra anna ruwa indakum nee na ko ne ko fa jismu ma partout nee na ruu gi moom mi ngi ca étranger mi ngi waaye loolu kooku wax da nga yéemu mu ne fari wax bàyyi waaw indi yooyu ndax de gisoon noo ko naka jekk na ko waaw waaw xam nga léegi ni si moo tax Seydina Aliou ne waaw far yaa jabi naas min nii ànd lii badana laa ruuxa fii wali ruuxun bi laa badani na loolu moom foog dégg da nga yéemu jëmm ju taxaw ta ruu nekk ruu nekk ruu goo xam mi ngi nii ànd ak ko wax mu ne est-ce que daa di ba mu jeexee nag mu ne ko min muridika wa xalilika wa xabibika nee na bi mi ngi bàyyi ko sa murit bi sa soppee sab xarit ñu wax ne ngañ jën foofu nga diggaat ko lu rëy mënoon naa wax sëñ ngañ réyal tur yi dégg nga di ko ndax martabam àgg na fa lépp luy wane pouvoir ci cër yi bi ne da ko dagg waaw daane ko ngañ jën yow yaay sa murit baa ngi nii sa soppe baa ngi nii sa loolu lépp dëkkaane si moom moom moom dañuy wax ñoom nuuru na ala nuur la rek ñoom moom toujours rek euh, ay seeni tànk kanam la jëm kon loolu kon ab cër lay tegtal kon loolu tàggutoo la loo xam am nañu rek ay fukki fan nga wàcc liggéey dañuy xam loolu ab tegtal kon kooku boroom ngërëm la liggéey boobu mu fi bàyyoon tam ñu di ko ñaanal bu baax yàlla yokk ay ngërëm yokk ay leer jabar gi mu bàyyi tam yàlla yàggal leen suñ si naar bi nga xam moo toog toogaay bi suñ muy koo xam ne li ñuy faral di moom ñëpp xam ne muy ci ci wàllu ci wàllu Pastef waaye rawatina dëkk maam na mën naa sacrifier boppam su xasee ba di ko yëkkati soxlaatul ko nag man jàpp naa ni lu neex si parce que nit ki gëm li am loolu wax ne nit ki warul toog ci armu nekk wala nga toog si kaw wurus ba pare di xëccoo jama ñu naan ñoom ay valeur yu rëy ba pare di damu doon loolu nag ñàkk a xam sa bopp moo ko waral yonent bi daa wax ne rahimallahu imran arafa qadra am na yàlla ñu ngi ñaanal bu baax ci ci loolu tey mu duñu si tokki nag ñun ñëpp nag leen siyaar sëñ Fall sëñ Mbay ñaan yàlla eh, barkeelal ñu bu baax li nga xam ne samp ngeen ko itam dem si yàpp rajo ay site internet télévision boo xam ne la salaamaaleykum waaleykum tuuti rek seede soo xam ne maa koy def ci sëñ naar maa ko fekke at mi donge yi jàppante ak waa daara Sidi damaa xëy sëñ Sidi woo ma ñu ànd dem fa bu ñëwee ci sëñ naar mu daal ñu yebal Kaolack dem fa def fa fan maag sëñ Sidi mi bi ñu bisee sëñ Sidi mi jóg na ba dem sëñ naar dong des ci néeg bi booba fekk am na benn taalibe bu di wax Baye Bass Diouf fa la dëkk mu jox ma cere sëñ naar laaj ma lu mu doon ma ne ko cerel moo xel ci bitoom mu jeex ma laaj may laaj ma la fa sëñ si daj mu daa toog mu yàgg mu daal mën ne sëñ la si laa ilaaha illa waaye daal daal daal daal yëngal bopp bi si ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér la la sëñ naar ñeme woon moom ragalu ko mooy jëfal sëñ Tuubaa foo ko rek amul jënn yitte lu jëfal sëriñ bi jërëjëf sëñ Fallou sant nañ baax sëñ sëñ sëñ sëñ Mbacke jërëjëf suñu xol set na waxtaan wi am na solo jërëjëf macha allah jërëjëf sëñ Moustapha Mbaye jërëjëf itam sëriñ Mbacke Sourang eh, di xam-xam bu ànd ak eh, ak dal mm, am fasaaxa eh, barit looy sàmm ak di ko wattandiku te loolu dafay baax trop ci fii jamono toll ak waxtaani nitu yàlla surtout koo xam ne bi mu fi jógee ak léegi nit ñi fàtteeguñ ko nga ciy waxtaan ci ay image yoo xam ne li ngay wax ñi ko doon dund ñi ngi lay dégg loolu euh, di ci bàyyi wala xel ñi lay ndax sëñ sëñ Mbay Jaxate def na del peese say wax tey peese ñi ngay waxal tey peese fi ngay waxee ak ñi koy xala déggati loolu dafay am solo barab bi may waxee man ban barab la ñi may déglu ñooy ñan bu ma noppee ñiñ koy nettali ñooy ñan man mi koy wax maay kan yooyu dafa mat a bàyyi wala xel ci ay wax daaneel ba noppi am ku di ca néegam daan naa bokkut ak kaa xamoon de wala boog li ngay wax demewut noona loolu lu mat a bàyyi xel la ci wax te fi mu nag dafa xew euh, ñuy sant bu baax a baax sëñ Sidi ci noonu ko waxee ci nu ko sëñ Issa ñore nga wax nu ko sëñ Naar ñore nga wax nu ko sëñ Baara ñore nu ko sëñ Issa ñore ngay wax ndax xam na ne dàtt bi mooy sëñ Issa te it ba mu tàmbalee sëñ Issa ak di ko wane yaakaar naa ne liggéey na ci liggéey boo xam ne buñ demee ba fu na lekk nga fay dégg sëñ Issa grâce ak sëriñ Sidi ci ak gëstoom ak ay yor ay secret yu leer naññ yoo xam ne ay preuve la yoo ànd ay leetar ba noppi nag mu laabir ci te di ko génne fii dalal na fi ay borom xam-xam ba ta ku mel ne sëñ Bousra Samb ay Omar Kane Balaye Mortala Fall ñoom ñëpp fu ñuy tàngatal sëñ Issa yóbbu na leen fa jox leen ay ay ay mbind ba ci ay sëñ daane mesi rek ñu mel noonu <clears throat> loolu lépp jublu ci woon lu weesu wane sëñ Issa wane wutoon boppam sëñ Tuubaa nag dane wane ma ma wane la wa ahli nii wa ahli man yuhini sooy wane sëñ tubaa rek sëñ tubaa di la wane da ngay dem di wane sëñ tubaa ba yow nga feeñ nit ñi defe sax da ngaa feeñ fekk na yow sax jublu woo woon a feeñ ki ngay wane moo mel waaw eh, ñaareel bi itam loolu baat boobu ngay wax ci ngërëm du caaxaan loolu ñuy wax nga xam ne korite bis bis bii ñuy ñaan ñaan gii ñuy def nga xam ne bu ñu waree ba noppi lañ ko daan def du demee noonu sëñ sëñ naar di toog ci bâtiment bii kër baayam ne ci werandaay bi at yi ji di ñëw mu koy yendoo ba ngoon jot mu yët ko sëñ Tuubaa ñu ànd ak sëñ Siidi digg bëcëg di andi ay ay ay addiya coo ci la waxe woon ne nga xam ne ki koy jox moom a ah, ñaari enveloppe bu addiya bi jox na ko waaye beneen bi ci des moom bu señoon sëñ Isa sëñ Naar def ko ci poosam daa mujj sëñ Naar na ko lu waaye bañ ma jox ko sëñ Tuubaa bu ma ko jox ci bëccëgub tey bi waaye lu mu waaye jox naa ko bu kon moom soxla altoon benn waa it sëñ Naar sëñ Siidi mii la wax na ko lii jaay ci kër gi am koy te loolu dara mayu ko kon weesu ñeme addiya ak eh, <clears throat> ndax bu jébbalu ci sëñ baara tërbiyewu sëñ baara ba noppi nag soo ko topp sëñ sëñ na fan jaar moom ñeneen fan nga jaarale ñu ngi ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd ànd ak wér gu yaram di fàttaliwaat bokk yi rek màggalu sëriñ naar jenn gi nga xam ne mi ngi am ci fukki fan ak juróom ci weeru kor wi dëpp ak le 24 avril incha allahu rabbi di am fi nga xam ne bëccëg lay doon dañ koy yendu ba ngoon ñu ngi ciy séntu ñëpp seen mbokk taalibe Fallou Galass la woon sëriñ Abibou Thiam moo nekkoon ci wàllu machine bi seen émission kii kan la ñu dalaloon sëñ Mbacke Sourang ñu waxtaanee Serigne Naar Jenn moom seriñ Baara moom Serigne Issa ngi leen di sant leen gërëm di leen joxaat rendez ci beneen numéro asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.